yi fiti lo mi ga ya gars yi nuyu naa leen euh, man la sen frère Ousmane sar fi ngeen di gis nak donc li tax ma ñëw def fi live mom moy place su Mame Pathé Mbaye Mame Pathé Mbaye nag yaakaar naa ñu bëri xam nañ ko ndax li muy ànd ak Ousmane Sonko euh, ndax yaakaar naa heure bu Ousmane Sonko di génn këram moom rek la ñuy gis mu sol lu weex tàll ànd ak moom ñenn ñi sax di ko tuddee Mara Sonko euh, moom nag actuellement nii sax bokk na si ñi nga xam ne dañ leen a ciblé woon koroog manifestation que mi ngi nii gis ngeen ko dama doon def dama doon film dama doon def live nañ ñu si kanam bu ñëwee rek cee day ñëw fay ko dans trente minutes waaw keneen bu ñëwee rek moo woo ko mu ñëw mu constaté place bi ak beneen place bi lii lii dafa doy waar nga bàyyi nit ki sa waaye ay règlement de compte politique ko benn place parce que dañu ciblé woon ñaari place muy place Mame Pathé Mbaye ki nga xam ne moom mooy Cheikh Thiam bi nga xam ne moom moo nekk États-Unis moom it di jàppale président Ousmane li ko def sax moo gën comme dañu soree moo tax dinaa dem aussi jël leen mais lii benn ci place mooy place Mame Pathé Mbaye bi nga xamante ni nii donc actuellement mi ngi ci biir kaso bi parce que dañ ko jàpp koroog bi nga xam moom la président Ousmane Sonko doon dem tribunal di wuyu ji donc mu langaami ko woon si kii bi pour bañ ñu gaañu Ousmane Sonko si loolu lañ ko jàpp woon actuellement mi ngi si kaso bi léegi lii nag c'est parce que ku mu ku mu yeewul kene ñun ñi ñu jàkkaarlool gouvernement bi ñu yor donc ay ay wëyu lañu ku mu yeewul kene gouvernement bi ñu yor ñii ay bandi lañu ñii faalewuñu askanu Sénégal yaakaar naa dara dootu la yee parce que pour man règlement de compte politique warul warul tax nit kii di di yàq palaasu jàmbur parce que lan parce que àndut ak yow parce que lan parce que dafa ànd ak Ousmane Sonko nga jàpp ko tëj ko si kaso bi yamatoo si loolu nga ñëw yàq palaasam yàq ay bagaasam ndaw ñi fi doon liggéeye seen liggéey yàqu donc tey mënu mënuñu liggéey fii yëpp ay oto lañ fi doon ay lañ fi doon gaare ak di fi raxasee oto mais tey mënuñ si dara parce que gis nga place bi yàqu na je pense que mi ngi nii vous voyez les images vous voyez gis ngeen verre yeeg lépp la ñu daaneel gis ngeen place baa nii base beeg lépp la ñu daaneel Sall mi ngi liggéey avec ça ñu ne Macky Sall mi ngi créé emploi ban emploi la créé lu dul dafa yàqal nit ñi seen emploi gis ngeen yéen a ngee gisal seen bopp i yaa ngi nii c'est parce que garaaw la si dëkk bi ñu nekk muy Sénégal mooy que nga bàyyi ba 3 heures du matin nga ñëw palaasu jàmbur 3 heures du matin koo xamante ni dèjà mi ngi bi njabootam ñoom ñoo nekk fii di suturloo nga bàyyi ba 3 heures du matin nga ñëw indi sa bill de seet ak gendarmerie laajte ne ana place Mame Pathé ñu ne leen place am mi ngi nii gars yi ñëw indi seen ay bill rek commencé yàq waxuñoo kenn te doon si biir marchand ambulant dañu ñëw ne leen génn leen dañu ne ne leen génn leen nu génn rek ñu commencé yàq gis ngeen gis ngeen avec saa lii bu fekkee ne Macky Sall man ak ni mu toroxalee Sénégal nii bu ko yàlla toroxalul man dina ma jaaxal place Mame Pathé ngi nii après dinaa dem jëli leen beneen place bi aussi ngeen gis ak seen bopp mooy place Cheikh Thiam bii mooy te ay ndaw yu bëri ñoo fi doon daan seen doole di fi liggéey mais tey jii nii kenn mënatu fee daan dooleem lii da lii dafa doy waar lii lii dañ ko war a dénoncer lii àdduna bi yëpp dañ ko war a gis malgré am na ay médias yoo xam ne ñëw nañ fi di jël ay ay image mais lii àdduna bi yëpp dañ ko war a gis te règlement de compte politique rek moom moo war a lii yëpp am je pense que lii lu doy waar